yow mi ko xam waxal wa kunu ala ma cheikh kaana yaxusuna alay min ataati qawlan wa min amal wa aasidi nafsa fi dunya muasabatan qabla alqiyama زرنا قبل القيامة بربع دون قصرا من منصرنا قبل القيامة تربح دون خسران من منصورنا قبل القيامة تربح دون خسران من منصورنا قبل القيامة تربح benn bindkat nee na aqbil ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insaanu jublul ci sa bakkan nga defar ko defar ko ba mu set na nga mën a tegu ci yoon waaye boo ko deful rek réccu lay indi kon li ñuy wax nii yëpp dañu bëgg rek defaruwaat ñun ñëpp waaye ka tëdd ak njaaxaanam yooyu ak kaalaam googu mu daan kaalawoo sànni tànk yi bu jëlee biig di wax ak kan la doon waxal bakkan ak kan aqbil ala nafs yaa xaadimal jismi kam tasaa li xidmatihi atatlubu ribha mimma fihi xusraanu mu ne aqbil ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi laa bil jismi insaanu waaw ko defee nag waxtaan yi yëpp li tax ñu di ko def rek nañu dellu siwaat dellu siwaat rek tegu ci yoon bu dul loolu danañ dem ba àgg ci mpax daanu ci te fekk ni du foofa boo fa fekkul nag ku la mën a génne bootul dootoo génn te itam jot na jot na fi ñu toll ni sat lislaam bi turwee fi des rek waaye xam-xamu lislaam bi léegi ñi ci bari duñ ko laal bu ko defee nag yàlla bind fi bàyyi na fi lépp yàlla bàyyi na fi lépp euh, ni ko sëñ Babacar waxe woon ni rek ne ni ko Sidi Bakar waxe woon rek ci gàmmu ga ci gàmm ga euh, te boo demee da fekk loolu ci benn aaya ne boo demee rek da fekk loolu ci benn aaya euh,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 wa maa yulaqaaha wa maa yulaqaaha defaru jot na na moom daal xam naa defaru daal jot na jot na ñu seetaat na nag ñun ñëpp ñu bokk seetaat suñu bopp ki ñu ki ñu ki ñu ki ñu bind ne ki ñu xam ni ñun moo ñu bind muy borom bi muy borom bi lan la bàyyi loo xam ne danañu ko laaj ëllëg lu mu ñu wanul fii lan la bàyyi loo xam ne danañu ko war a laaj ëllëg lu ñu bàyyi fii te waxuñu ko te waxuñu ko. damay wax ni jàngalekatu école yi. nee day wax rek ni jàngalekatu école yi. début d'année bi début d'année bi. li ñuy génne programme at li ñuy génne ñoom programme at mi. di ko wan élèves yi. di wan élèves yi. en même temps en même temps. bu ñu génnewaale woon bu ñu génne waale woon. épreuve fin d'année yi. épreuve fin d'année yi. xale yi xool ko yi xool ko. gis ko ci programme gis ko ci programme bi. kon fin d'année nu kon fin d'année nu muy mel. maanaam ku jàng. xan ku jàng. waaye ki jàngul. waaye ki jàngul. dem na war a demul. ndax dem na moom. ki triche sax ba dem. ne ki triche sax ba dem. ba dem lu mu yóbbaale lan la yóbbaale. yóbbuwul dara yóbbuwul dara. bopp neen rek. bopp neen rek a fa nekk. te yàlla nag bëgg na ñëpp dem. te yàlla nag moom bëgg na ñëpp dem. lépp la leeral. lépp la leeral. boo tuubee rek. boo tuubee rek. yu baddilu laahu. sayyiaatihim xasanaat. foo waroon def plus x. nga def ko mooy x. nga def ko mooy x. lu la waaj di may. lu la waaj di may. double zero six quarante. double zero six <laughs> barakallahu. yàlla yàlla doole jàppale. waxtaan ñu sant Xaaj ah, eh, Malick. ne waxtaan wii ñu sant rek Xaaj Malick. bashiru Bachirou Bachirou génne ko. Bachir génne ko moom. dafa bëgg ñun ñëpp ñu nafaraat dafa ñun ñëpp ñu nafaraat rek sunu bopp. xoolaat ku nekk la nga la nga yor. xoolaat kenn ku ne la nga yor. te moomuloo ko moomuloo ko. delloo ko borom delloo ko borom. sinon sinon. da dem ba ëllëg da ngay dem ba ëllëg. ci kanamu yàlla ci kanamu yàlla. sa lépp rafet mu delloo yëpp ña nga xam ne ñoom ñoo ko moomoon. looy dese looy dese lan ngay dese. daara. yàlla nañ ci yàlla boole musal. déedéet waxuñu kenn nag bàyyil àdduna yàlla daal àddina terewu ko kenn ndax wabtaxi fi ma aateka allahu daaral axira waaye wala tansa nasibaka waaye wala tabghi al aywa yàlla ñu yàlla boole jàppale yàlla boole jàppale Bachir kenn moom daal bàyyiwuñu kenn ñoom ñëpp kilifa diine yëpp kilifa diine yëpp rek ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziyaara bu baax di ñaan nag yàlla sunu borom subhanahu wa taala sunu borom subhanahu wa taala yàlla ñu jéggalal boppam yàlla nañu yàlla boole jéggalal boppam wuutuñu ci xaq yi dox ci sunu diggante wuutuñu ci xaq yi dox ci sunuy diggante kenn ku nekk mu fayal la sa morom ku nekk mu fayal la sa morom mën na ko mën na ko am na ko am na sañ na ko te kenn du ko wax lu tax déedéet te kenn du ko wax lu tax yàlla nañu ko defal yàlla yàlla boole defal yàlla nañ ko yàlla defal ne bu ñu sañoon daal ñu continuer lii kenn ku ne dellul ci sa kër rek ci sa kër rek nga xoolaat sa bopp na ngay doxale ak na ngay dunde ndax yoon la wala du yoon barakallah qabla fawaatil awaan nag boo demee ba dara desul nag bu dee nga tëdd ci lalu bu demee nag ba nga xam ne dara desul nga tëdd ci lalu sukuraat tey rëccu tey rëccu dara jëriñ yàlla nañ ci yàlla boole musal ne lii nag ñuy def nii waxtaan la rek ñu war a daje waxtaan rek déedéet àddina daal moom yàlla terewu ko kenn xéewal yi fi ne yépp pour nit ñi rek la waaye def nu ko fi nag pour lottal kenn barakallah waaye solu wutal loo def ci poche bi wutal foo dëkk wutal looy liggéey wutal waaye nag loole na tegu ci yoon nag yàlla nañ ci yàlla boole jàppale yàlla nañu yàlla yàlla jàppale delloo waat yi nag ci julli te wàccaay ba ca defaru ga ci war a doxantu ba lépp set nga soog di raxasu ñëw toog di jàpp benn ci loxo bi ba ca tànk ba lenn lu ci ne nga laaj lu ci yàlla wax yooyu daal tem bi Bachir daal temam bi fa tabarakallahu am na solo lool jaarakallahu miskaala darratin خيرا يره مثقال ذرة شرا يره nee <laughs> daal ñu defaru bismillah ñu defaru daal kenn amul loo ko jame kenn amul nag loo jame yàlla ndax lépp leer na ndax lépp leer na lépp leer na ne xaar sëñ Mansour nga ñaan ñu la ne nga ñaan ne am na sunu mbokk yi fi ne Pape Sambaare nga ca mi ngi ci waaw waaw Pape Sambaare Diop waaw dem na ak sa am Mansour Cissé bu bubaay alxaaji am Cissé yónnee na fi délégation moom it Samba Diop moo ko jiite papa Habib Sakho ñëw na njabootu maam góor gi Ilimane Sakho ñëpp jóge ca Ngapparu alxaaji Jibril Gueye imaamu ratib ca zawiya maam Cheikh Seydi Hadji Malick ca New York ak doomam xaj góora jéey ñoom it ñëw nañu ñu moom it njaboot gi njaboot la ci góor gi Moussa Jéey bu sàkkal ñëw na moom itam ama Tijaan Taal imaam tàllal leen loxo yi ñu ngi ñaan fu waay toll na ni amin tàllal leen loxo yi dugal ci yéen yëpp dugal ci Seydi Boubacar xalifa bi yàlla may ko ne ñun ñëpp ñu bokk jàng fatiha salaat al fatih ayatul kursi lixlaas fadaqi naasi tëje ko salaatu fati jaamoo ko yàlla diigal ci nag soxla yépp yal na ko yàlla faj ci barke rasulillahi boole ca wér ak dund ba ca kanam wuutuñu it ci xaq yi dox sunu diggante kenn ku ne mu fayal la sa morom ci barke rasulillahi waali ca New York ñu dugal ko ci ñaan gi ak Pape Seydou Ndiaye ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla xettali ak ña fa nekk ñoom ñëpp ci barke rasulillahi wax leen amin wax leen amin allahumma amin amin allahumma amin yal na yàlla defar lépp barkeen